L'eau multimédia moi l'un émission à Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Badian, angle Paul Oldakar. Dakar L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau et les accessoires ci ay njëkk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 Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 04 04. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. mbokk yi ñu am mbégte lool dellu siwaat ci sunu jotaay as-salafu ma'al Qur'an ci li nga xamante ne moom mooy saison ñaareel bi muy wàllub ñaareel bi Eh, di am mbégte lool di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom dañu ciy gunge bu baax a baax muy loo multimédia nekk fa li nga xamante moom mooy Sandaga ñoom ñuy jaay lépp lu jëm ci électronique te ñuy jaay qualité ak lu baax waaye yemu ca ñoom ñuy nga xamante ne moom mooy jotaayu alquran al karim yi kon ku woote ci numéro yi di daw ci suuf rek soo yeggee Sandaga di nga mën a yegg ci ñoom nga amee ci ñoom lu baax a baax inchaa allahu taala waaye di jaajëfal képp koo xamante ne yow da ngay teewlu di ànd ak ñun ci kër gi nga xamante ne moom mooy la maison du Coran au Sénégal muy baytul quran al karim di jaajëfal bu baakha bax ñi nga xamantene ñom lañuy àndal ci liggéey bi fi ci daara ji tay nu nek suñu jotay bu njëkk ci seetoob ñaarel bi di asalaf mal qur'an comme ni leen ko waxee lañuy li mom moy leral lan moy maana mooy al qur'an al karim xifdan wa kitabatan lan moy maana dajale al qur'an al karim ci walu mokal ko ci dënn yi waaye ak bind ko ba mu dajje mu nek mu al qur'an al karim bo xamante ñun ñep dañ koy jëfëndiko ñëpp xam nañ ne aljamu mooy taaliful mutafarriq mooy fekk mbir moo xamante ne dafa dajaloo dafa tasaaroo maanaam dajewut nga fexe ba moom mu daje loolu moom mooy dajale dajale mooy da fekk loo xam dafa wasaaroo wala mu tasaaraw nga daal di fexe ba dajale ko mu nekk loo xamante ne wax dëgg fi yàlla dajale nga ko ci benn bërëb loolee la jamu di tekki bëgguñoo sori ci li nga xamante ne moom moo di at tafsir ay sharha lugawi nekkuñu ci dars luga waye maana jam al istilaahi li nga xamanteni mom lañ ci gëna nam ci jotaayu alquranul karim fofé la ñuy gën yaatal te lañuy teunk li nga xamante ne moom mooy jotaayu tey jam'ul quraanil karimi yutlaqu fi ulumil quran ala maanayin suñu waxee dajale alquranul karim ci li nga xamanteni mom moy xéti xeeti xam-xami alquranul karim ñaari maana lañ ci nam waaw ñaari maana yi bi ci jitu moy jam'uhu bi maana hifdhuhu fi sudur an zahri qalb dajale alquranul karim maana bu ñeek bi nga xamantene mom lañ ci gëna nam mom moy lan mokal ko ci dënn yi alhamdullilahi rabbil alamin ku yàlla may nga mokal alquranul karim sante ko yàlla buur bi subhanahu wa taala ma min ni'matin akbar ولا أعظم ولا أغلى ولا أسمى من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مكل القرآن الكريم لو ري ري لا نيكو مكل الله أكبر xam yàlla dénk na leen xéewal gu rëy waaye ñi mokkalagul alquranul karim ñan na yàlla buur bi subhanahu wa taala yan na yàlla may leen ngeen mokkal alquran muy mag ak ay ndaw ay góor ak ay jigéen ni ñu bëggee alquran al karim yàlla ñaan naa la comme ñoom ni ñu bëggee alquran di topp jotaay alquran al karim yi di càmbara alquran al karim yàlla maa ngi lay ñaan nga may leen ñu mokkal alquran def leen ci ay jéego insha allahu taala yàlla nangu sunu ñaan ngeen mokkal alquran al karim kon maanaa bu jiitu ci wàllu dajale alquran mooy mokkal alquran al karim mu nekk ci dënn yi an dahri qalb nga xam ne alquran mën nga gëmm daa di koy tari la hawla wala quwata illa billah من سورة الفاتحة إلى سورة الناس الحمد لله رب العالمين jeexal ko jël baqara ali imran nisa maida ba yegg ci sura suuratu naas dafa am xéewal goo xamante ne wax dëgg fi yàlla xéewal gënu ko rëy daf nuy dal ñun ci julli nga kabbaar tari fatiha ba jeexal ko xoolal dafay mel ni saar yépp min fatiha baqara ba naas saar bu nekk day taxaw ne la tarima maanaam fu la neex tibb ci alquran al karim dafa neex lool lool lool yàlla na bu leen ko yàlla xaj nga mokkal alquran soo jeexalee ci fatiha rek da ngay xool aaya ban aaya nga war subhanallah yal yàlla buur bi subhanahu wa taala may ko képp ko xamante ne yaa ngi teewlu di asalafu ma al quran kon maanaa bu jiitu ci li nga xamante ne moom mooy quran al karim mooy xifduhu fi sudur mooy mokkal ko ci li nga xamante ne moom yi la koy tegtale mooy waxu yàlla buur bi subhanahu wa taala ne inna alayna jamahu wa quranahu man yàlla de man maanaam dajale al quran al karim man yàlla buur bi subhanahu wa taala la war danoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jarul sax yakamte man yàlla dina ko dajale ci sa deun waye dina la yombalal pour nga man ko yegge nit ñi ay jam'uhu fi sadrik man yàlla man maa dajale ci li nga xamantene mom moy lan ci sa deun ba mu mate fa wa ithbatu qiraatihi fi lisanik ma dadi la yombalal te saxalal la li nga xamantene mom moy jàng ba nga man ko jotal li nga xamantene mom moy sahaba yi lu mel non ñëw ci xadiisu Abdullah ibn Omar annahu qala jamaatu alquran fa qara'tuhu kullahu fi layla nee na jamaatu alqur'an dajale alqur'an lim ci bëgg wax moy mokal nako فقرأته كله في ليلة ما جنغ القرآن ييب تي بين غودي لا إله إلا الله بين غودي ما جنغ القرآن الكريم يب نين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان yent bi neko damay bañ manam jamono yag ci yow wa anta mal ba nga yoxat manam ba nga dem ba mujj ci tayal ne ne faqrahu fi shahr jang ko ci فقلت دعني استمتع من قوتي وشبابي yonent bi teg ma bàyyi rek man comme que man ndaw laa waaw waaw ndaw laa sama kattan su ma taxaw taxawaay bi du ma sonal te du ma sonn ci jàng bi bàyyi rek man ma koy def noonu nee na nee faqrahu fi ashra kon yonent bi ne ko jàng ko léegi ci fukki fan ci fukki fan baax na fukki fan baax na mu ne qultu da'ni astamti'u min quwwati wa shababi ma ne ko yaa rasulallah bàyyi rek man ma comme que man ndaw laa yonent bi ne ko faqrahu fi saba jàng ko ci juróom-ñaari fan قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى bima ko ne yonent bi kon bayima am rek man ma xéewalu manam ma banexu ci sama kattan ak sama ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa aba mudadi dadi lànk loolu hitam benen masala la moy masala ni nan ndax alquran war nañ ko jàng ci benn fan wala ñaari fan yu mel non incha allah dinañ ko beral jotay bopam dafa am ay bayanat yu bare bare yo xamantene ñewon ñëwoon na même asalaf ma alquran ci saison 1 bi suma ma amna fo xamantene leral na ci yu mel noonu mu nekkon ci jamono covid bi ca ba muy dora a فمعنى قوله جمعت القرآن أي حفظته عن ظهر قلب قلب معنى معنى لم هنا جمعت القرآن دجلنا القرآن لم تنم موي حفظته موكلنا كو تسا مدن معنى القرآن يب موموكي تلنغ حمنتنا موموي خلم موتا لن نيوم يدال وحنا جمع القرآن سن وخون جمع القرآن يدجل القرآن موموي نن أي حفاظ القرآن موي نيغ حمنتنا نيوم نيو موكل القرآن الكريم كون لولو موموي معنى بنجك تي معنى جمع القرآن دجل القرآن موي حفظه في صدور موي موكل كو تدنيا ñaareelu maanaa bi nga xamante ne moom la ñu namm ci li nga xamante ne moom mooy lan mooy euh, jam'ul qur'anil karim moom mooy lan bi maanaa kitabatuhu moy bind biñu al bind al qur'an al karim motax ñu ñu mëna am kamil gi kon li lañu li mom moy mooy ñaareelu maanaay bi nga xamantene mom lañu nam ci li nga xamantene mom moy moom al qur'an al karim ba ñun ñu mën ko jot tey jii mu nekk kamil go xamantene ñun dañu koy ubbi di jàng al qur'an al karim lool nak la koy saxal mom moy lan maa warada fi alladhi akhrajahu al bukhari fi qissati jami qur'an fi ahdi abi bakr ibn sadiq wa mimma warada fihi qawlu umar ibn al khattab li abi bakr رضي الله عنهما واني ارى ان تامر بجمع القران moy umar ibn al-Khattab ba nga xamanteni gis na ñu bari ci ñi mokal al-quran al karim ñu commencé len ray ci li nga xam xurubu ridda manam ñu commencé len ray ci lu bari bari ci xare yi nga bi Omar ibn Khattab daal di ñëw ci ki nga xam ne mooy Abu Bakr ni Sadiq comme que ñi mokal al-quran al karim ku melni Salim Mawla Abi Hudayfa ak ñu mel noonu ñu ngi len di ray mu ne ko suma ma sañoon de nga digle ñu daal di dajale al quran al karim lu mu ci nam manam ñu daal di koy dajale ci benn kamil kon ñaarelu maana bi nga xamantene mom la mom la jamu di tekki moy ñu dajale alquranul karim bind ko mu nekk ci ben téré wa qawlu abi bakr ni sadiq li zayd ibn thabit radiyallahu anhuma fa alquran alqurana fajmaahu abi bakrin ba mu woowee zeyd ibne thabit mu ne ko ay wa toppal alquran alkarim toppal laayat yi nga daal di koy jëlee nga daal di koy lan nga daal di koy dajale kon fajmaahu ay uktubhu kulla nga daal di koy bind yépp mu nekk ci benn benn téere mu nekk ci benn kaamil kon ñaareelu maanaa bi loolu daf koy tekki waaye zeyd ibne thabit moom itam dafay bokk na ci la koy tegtale ne lañ ca nam mooy ñaareelu maanaa bi mooy bind ko ci ab kaamil mooy waxam jam wax naan fatatabaatu alqurana ajmaahu min al asafi wallixaafi wa suduri rijal moom na mu doon jëlee alquran alkarim maanaam ñi ko daan bind ci ay yax yu tàpp yooyu ñi ko daan bind ci ay xobi tenderma ñi nga xamante ñoom ñoo ko mokkal mu daan ko jël di ko dajale euh, pour bind ko kon fatatabaatu googee euh, nee ne ajmauhu ay ak aktubuhu lim ci nam mooy leen ma nekk di ko di ko bind te suñu xolé ci li gëna siiw ci tour yi nga xamné moy tour tour téré bi alquran amna ay tur alhamdulilah amna qasida bo xamné ne bind naa ko tudde def ko ci li nga xamné moy asmail quran al karim mooy al-qur'an al karim dinañ ko fexe ard ba ahli alquran al karim yépp man ci jot dina leen yombalal mokal li nga xamante ne moy tour tuuri al karim waaye suñu xolé tour yi ñaari tour yi nga xamante ne mo ci gëna siiw moom moy ñaari tour yi nga xamante ñom ñoo joxé maana yi alquran ak alkitab waaw alquran ak alkitab comme ni nga xamanteni ne la ñëwé ci ay ayat yu bari bari bari bari muy junj li nga xamante ne moom mooy alquran alkarim manam jëmmi baati alquran ñëw ci waaye itam alkitab alif lam mim dalika alkitabu la rayb fi alkitab suñ ci namee moom mooy téere bi kon tour bu ñëk bi nga xamanteni ne moy mooy tekki alquran te ñun ñëpp ñun ñu min ko ishara ila jamihi ila jamihi an tariqi maana al awal maanaam suñu waxee alquran rek da fay delu ci li nga xamanteni ne moy mooy alxifdu fi sudur باتي القرآن الكريم mooy الحفظ في الصدور kon li nga xamantene noné lañ ko tuddé dafa mengo ak li nga xamantene mom moy li am parce que alquran mom moy jëmmi téré bi nga xamantene dañ koy mok dañ ko mokkal mu nekk ci dënn yi te nu koy tudd ci li nga xamantene mom moy mooy waye alkitab suñ ko waxé mom moy téré bi nga li nga xamantene kamil gi nga xamantene dañ ko bind mané mom moy li mom moy alkitab kon da ngay gis ne ñaari maana yoyu mom da fay dellu ci tour yi nga xamantene mom mo gëna siiw ci tour yi alquran al يالنا يالا بور بي سبحانه وتعالى مي ني توفيق ظاهر اك باطن كون لي مو نيكون سونو جوتاي يو نياريل تي ليغا خامتاني موم موي آه، جوتاي غو جيتو تي اسلف مع القران آه، مو نيكون معنى جمع القران الكريم لان موي معنى dajale alquran alkarim kon incha allahu taala ci jotaayu ñaarel bi di ñëw ci saison bu ñaareel bi ñu dooro ñëw ci ni nga xamanteni non la yàlla burbi subhanahu wa taala sammi alquran alkarim ci asamaan ak nan la ko sammi ci digeenti asamaan ak suuf ak nan la ko sammi ci kaw suuf kon ma kana min sawabin fa min arrahman wa ma kana min khata'in fa min nuqsan salla al ilahu ala nabi wa alihi ma labaa mulabin aw tahallala muhrimu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste le l'informatique, informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires ci ay